alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah maa ngi lay fay nuyoo di am mbégte ci li ngeen ma liggéey bi mu defal na ci barke te bañ a def suñu jotaay bi neen mu jëriñ ñu ci ñun ñu koy def jëriñ ñu koy enregistré ak ñi nga xam ñoo koy seetaan jërëjëf. question bi nga xamante ni moom rek euh, laa lay laaj euh, oustaz moom mooy émission yi nga xamante ni dañ koy def ci rajo yi ak ci télé yi ñi nga xamante ni dañuy woote. di ngisaane di petaaw ñooñu lan la ci diine wax. diine dafa aaye waxuma la gisaane petaaw mais horoscope sax diine daa ay ko ko liir mbaa nga déglu ko wa wasamaay zatil buruj sunu borom ne ne mi ngi giñ ci asamaan seeg horoscope am yooyu ñi nga xam ne ñoo ngi def loolu mi ngi gàddu yetam di leen wër xucci la ashaabul uxduud annaari zatil waqud mi ngi ci alxuraan horoscope sax dafa dafa dafa xaraam waxum laa nag nga nga nga nga jóg dem ci nit wala nga toog woo ko téléphone pour lan la lay wax lan su la mënoon a wax da nga naan alu mun la nogoy waaye dina alu ne la yow la kan ne la fooy wootee maanaam di la laaj pour liggéey ci sa xel way sunu yaay Aïcha daf ko laajoon yonent bi ne ko waaw ndax nun mën nañoo dem di gisaane lu jag seetlu mu ne ko déedéet mu ne ko ah pourtant noonu de ñi cay dem nee nañu lañ leen di wax léeg-léeg mu nekk dëgg mu ne ko dëgg la waaye baatub dëgg la buñ jaxase juróom-ñeent fukki fen ak juróom-ñeent parce que koo gis muy seet dafa am benn communication bu dox digganteem ak jinne yi ñun ñor téléphone xam nañ ci dara am na ñoo xam ne seen opérateur mooy diw ñee seen opérateur mooy diw pour pañe publicité waaw am na ñoo xam ne fi ne ci àdduna yonent bi mooy seen opérateur dañ ko jox ko mu en direct mu boole la nag ñi nga xam ne ñoom peut-être ñoom tam ay ay ay kii lañu ay agent la ñu agent nangam nangam am na ñoo xam ne seytaan lañ lañu la ñu connecton direct mooy seen opérateur léegi nag boo ñëw ci gisaanekat bi di ko gisaa nelaw dalay jox pièce ne waxal sa soxla mi ngi lay pièce boo la joxee pièce da ko wax sa soxla da ngaa war ne ko yàlla na nga dee rek jox ko nga xool waaye da nga yor pièce bi naan ko sama wujj wi laay seetlu bi nga ne sama wujj wi léegi jële nga li nga doon laaj ci aalamul xëy bi ci kumpa indi ko yow ci sa serveur bi léegi sa jinne jël ko jox ko jinneem jinneem jox ko ko mu wax la ko c'est très simple mm-hmm. yow bi nga ñëwee lu tax ngay jël pièce di ci wax say soxla bi nga waxee sa soxla si sa jinne moom dégg na ko am de mhm. léegi da koy jox jinneem jinneem jox ko ko beneen exemple sama sa ñaari techniciens yi tey bu fekkoon ki dafa nekk géejawaay kee nekk parcelle nga ñëw ne ma man de dama doon ñaanlu mu jël sa tur jël sa sant jël sa adresse jël sa age sa tur ak lépp ba noppi nag na la mënuma laa faj waaye yow ki lay faj mu ngi ci wetu ndox nga ne ah ma ne wax mi ci wetu ndox xaw ma nag fu mu nekk nga génn fii di dem ma daal di def benn message whatsapp jox ko inf jox ko yi nga ma wax yépp ma jox ko ngay wër nag di wër ba ne jeef këram nga ne yunn rek mu jaar sa tur nga ne ah mun la toogal nanga ma la tax jóg jaar nga barab sàngam mais kooku mënu laa faj xanaa moo la fi yebal yow fi nga toog da ngay lox fekk du tus ci tapp la la dugal da ngay lox fi nga toog léegi nag mu ne la deux cent mille laa lay faje léegi nag cinquante cinquante cinquante pour cent yi man ñi maa koy moom ndax maa la fa yebal moom it bu jigéen ñëw foofu daf ma koy paas mais loolu nit ñi yurunte bi yeete yeete yeete nit ñi nanguñ cee yeewu wa sukkuran ci laaj ba am solo bi ala kulli xaal nit day gëm ne xay bu kumpa yàlla mi ko bind moo ko xam ku xamoon luy kumpa ëllëg kuy falu da ngay bàyyi ñii di bëgg a def présidentiel nga ne diw mii yow yaay falu jor ngay campagne yow diw nag doo falu bul campagne li muy campagne mu xaaj ko jox la ko